yaa ngi siyaar Tidiane. siyaar nañ siyaar nañ Baye. mais Tidiane foo nekk. maa ngi fi maa ngi fi. depuis dernier combat bi Tidiane après gisaatuñu la lu tax. non maa ngi fi maa ngi fi maa ngi fi maa ngi fi ñu ngi waaj bu baax wax dëgg yàlla. waaw dama laaxoon sama dugub rek di entraîné xam nga rek waaw. mais kan moo ne sa kanam jamono ji non daa am contrat boo xam te ne amoon naa ko depuis daaw maag santan bi actuellement moom laay waajal nii mais promoteur pour l'instant jàppagul date quoi. yaakaar santan. waaw mais santan diisul. non daaw la woon loolu daaw la woon. Ah. non ñun dépassé nañ loolu léegi léegi fa kan moo nekk sa kanam. non ñi ngi xaar gars yi rek ñun amuñ problème adversaire wax dëgg yàlla. amoo ko ciblé yow. non ñun duñu ciblé mbër nag parce que ñun ñooñu mbëri ñooñu ciblé quoi. waaw waaye waaw gis nga loolu tax quoi. d'accord waaw.